ci xasida yi waxuma tawfeex waaye da ngeen am xaas tawfeex ju ànd ak xaas la sant seen ci bu baax ci kenn mag secret baa ngoog fonkal sëñ bi xasida yi moo gën a gaaw moo gën a gaaw ci jege sëñ bi moo gën a gaaw ci am ngërëmal sëñ bi moo gën a gaaw ci defaru doomu aadama waaw incha allahu kon bala ngeen di teewlu rek xasida googu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 mu ne payoorug sama borom ak payoorug yonent bi sallallahu alayhi ñoom ñaar doy nañ ma sëkk ci ngàndaay doy nañ ma sëkk ci aar doy nañ ma sëkk ci tiitaru doy nañ ma sëkk ci ndamu doyluloon nañ ma ba nga xam ne wëlis may yore ay xeej ay jumtuwaay yoo xam ne dama ko yor di ko fanqalee sama bopp di ci difandar sama bopp li ma yàlla fay doy na sëkk ci difandaral ma li ma yonent bi sallallahu alayhi wasallam jox ko saalika doy na ci sëkk doy nañ ma sëkk daal wëli may soxla leneen moo tax ma ne ajrul ilaahi payoorub sama borom wa jazaa'ul maahi ak payoorub aji far bàkkaar ji te muy yonent bi sallallahu alayhi wasallam xat ax na yaa niya xat ax na yaa niya ñoom ñaar doyluloo nañu ma lépp loo xam ne xeeti xeeti arma la ay xeet maanaa doy nañ ma sëkk fegal nañ ma lépp loo xam ne xeeti xeej la ndax payooroog yàlla kum ñëw ci yow payooroog yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñëw ci yow sëñ bi loolu moom mooy doy na la sëkk dégg nga mu commencé nag di wax nag jaar-jaar yi nga xam ne jaar na ko ci yenn ci barab yi yi nga xam ne xaw na faa yàgg ak yi nga xam ne man nga ne jaar-jaar rek la fa def ñi tàmbalee ko jéewal waaye jéewal moom indil ko fii waaye fii moom ndar la tàmbalee di dem ak ñun ba Kabla Bisa mu ne wa jaxtu jëmale naa lil Moustapha ca kañu tànn ko xablu ci lu jiitu fii ndar ca bi ndar maa loo xam ne saa xam màng na li si waaye mu jëm ci furun man ku la kadri bépp nëx-nëx xasidi gi nga bàyyi ci xel nag bi mu koy taalif nekkutoone ba muy dem ci géej gi la waaye dafa dem ci géej gi ba ñëw doog a nettali histoire bi moo tax da ngay dégg mu ne jox naa yonent bi ba ma nekkee barab sàngam wala defal naa yonent bi ba ma nekkee barab sàngam xeet yooyu wala jox naa yàlla bi ma nekkee dëkkub sàngam moo tax mu ne jëmale naa ca kañu tànn di bi ca la jiitu gis nga ba muy dem ci géej ga la ca namm booba ma ngi ca biir ndar ñu ne ko loo jox yónent bi indul ko waaye maa la wax man naa nekk nag ay julli mbaa ay tagg xëyit yooyu mu ne nag loole mu jëmale ci yónent bi daal moo xam ay julli la ak i tagg Sëriñ Tuubaa nee na moo màng gépp ak nëx-nëx gu ma naroon a gàllankoor ca ndar sama digganteeg noon ya moo ko màng loole ma jëmale ci yónent bi moo ko màng mu jëm ci furut man moo tam ne wa jantu jabale naa lil Mustafa ca kañu tànn ka xablu ci la jiitu fii ndar ca biir ndar maa loo xam ne ci ay julli mbaa tagg saa xam màng na li si waaye mu jëm ci furut man ku la kadri bépp nëx-nëx ba tey wa jantu jabale naa lil Muntaxa ca kañu tànn ka fii ndakaaru ba ma nekkee ca biir ndakaaru maa loo xam ne doonu kawe na mooy xeebloo na asukóora cant ya wal askaaru ak tudd ya mu ne ba ma ñëwee ndakaaru nag moom jox naa fi yonent bi sallallahu alayhi loo xam ne cant ya ak askar yépp lii ma ko jox sax xeebloo na ko maanaam gàccal na ko féete na ko kaw li ma jox yonent bi féete na kaw xeeti cant yëpp ak xeeti askar yëpp li ma jox yonent bi moo ko féete kaw moo tamit wa ñaxtu jëmale naa lil muntaxaa ca ndakaaru fii ndakaaru ci biir ndakaaru maa loo xam ne doona xeebloo na asukóor a cant yi wala askar ak tudd yi tudd bari bari ak cant yi li ma jox yonent bi ci ndakaaru moo xeebloo na ko maanaam moo ko féete kaw wajaatu jëmale naa ila nabi ci yonent bi fii safina ci biit gaal gi maa loo xam ne xaada wamata na lii ñal ma barakatal madina barke ba nekk ca madina jëmale naa ci yonent bi sallallahu alayhi ba ma nekkee ci biir gaal gi boo bàyyi ko na ndakaaru ba nekk ci gaal gi waaye boobu dem gut ko naakiri boobu mi ngi ci biir gaal gi rek aljëma googu ci biir gaal gi ci la nekk dégg nga nekk ba xëy di samedi mu doog faa jëm ko naakiri moo tax mu ne nag bi ma nekkee ci biir gaal gi nga xam ne yendu bi ma génnee ci nii bopp ñi ma dugaloon ca Dakar ba dugg ci gaal gaal gi dafaa yendu keroog ajuma googu fanaan fi sam gi nag mu doog a déqi mu ne jëmale naa ci yonent bi sallallahu loo xam ne moom womatal barke bu nekk ca Madina loolu moo tolloog allamani rahmaanu fi safina bi annani qadimu sil madina bi annani qadimu sil madina yàlla mi aji xéewalaa kon ñëpp cër nag xamal na ma nekkee ci biir gaal gi ne man kat maay liggéeykatu borom Madina fii nag moom dafa soppi xàbbu yi fii moom dafay indi maqaadali barakatal madina nga xam ne lam jëmale ci biir gaal gi loolu moo ko womatal barke bi nekk ci madina wajaxtu jëmale naa ila nabi ci ka ñu soloo ka fii safina ba ma nekkee ci biir gaal ga boobu maa ngi war a béykoo ndakaaru dem Konaakiri jëmale na ci yonent maa loo xam ne xaada womat na lii jox ma barakatal madina barke bi nekk ci madina la ma womat jëmee ci yonent bi daal moo ma womatal barke bi nekk ci madina kon barke bi madina mi ngi ci sëñ hadiyati samay hadiya xablu ci la jiitu la daa konaakiri ba ma nekkee fa konaakiri saaxan màng na li xëyri mu jëm ci furut man jumlatal manaakiri mboolem yu ñu fukk yi yi nga xam ne lislaam da koo bañ sariya da koo bañ mu ne samay hadiya nag tabaarakallaa ci la jiitu ba ma nekkee konaakiri màng na muy jëm ci furut man lépp loo xam ne lu ñu fëkk la yëpp boo demee ci ren xasidi moo koy leeral boppam hadiya ji ba fa am benn salum salum boo xam day saan bi suñu beekoon Dakaaru dem konaakiri da ko doon foofu sax kooku moo xamal sëñ bi sëñ bi neen foofu laa déggee ne turu gabon ñëw na ko dama dama laa bëggoon a siyaare ndax damaa déggoon ñu ne bis ni ki tey danga fi jaar dem gabon ba mu jàmbalanteeg sëñ Tuubaa ba noppi nuyu ko waaye nag ma dajaloon hëddiye jox hëddiye bëgg la koo jox pour itam nga ñaanal ma su ko defee nga dénk ma ay baat salum salum bi dal di jël hëddiye ji dal di koy jébal sëriñ bu mag bi dégg nga ndeysaan sëñ bi dal di koy ñaanal na ko foo mën a nekk na nga xam ne yàlla rek mooy yàlla te bis dana ñëw danga xam ne yàlla rek yàlla foo mën nekk nanga xam ne yónent bi yàllaa ko yónni te bis dana ñëw soo ko xamul itam bis dana ñëw da nga ko xam hadiye jooju nag nga xam ne dafa jàpp ne yokk na salum salaam bi ci xeetu yónent bi sallallahu alayhi wasallam hadiye la namu ci hadiye ji waaye nekku ne hadiye je ko saalum saalum ba jox maanaam nekku ne xaalis ba masalan xaalis ba ko saalum saalum ba jox pour sëriñ bi ñaanal ko dénk ko déedéet waaye hadiye ji sëñ bi ne lam ca namm mooy dénk gi mu dénk saalum bi ñaari baat yi mooy laa ilaaha laa ilaaha illallaah ak Muhammadu rasulullaah tawhid ga ci nekk dénk na ko saalum saalum bi ba yokkaat pas-pasam kon loolu dafa mel yokk na ko ci xeetu yonent bi kon da koo def hëddi yonent bi sallallaahu alayhi wasallam moo tax nag mu ne hëddiya ci samay hëddiya mooy lam dénk saalum saalum ba ci pas-pas xablu ci la jiitu ba may dem la daa konaari la daa konaakiri fa konaakiri saaxat hëddiya jooju nag ma jox saalum saalum ba laa biire ko ko saaxat màng na li xëy ma jëm ci furun man jumlatal manaakiri yi mooy loo xam ne sariha da koo fëkk da koo bonlu an la ma ni xamal na ma xablu ci la la daa karam basa fa karam basa muxsi ki nga xam mooy aji gàccalal ma allati ka nga xamee ne baara sa ni doon na liwa toog man waxal basa te daw na yàlla xamal na ma ci jiitu ba ma nekkee karam basa moom mi nga xam ne moom a gàccalal ka doon liwa man yàlla gàccal na ko toroxal na ko ba mujj gi sax dafa mujj daw loolu ba tey beneen xisa la moo bi mu yeggee Conakry rek ba war a jëm Karambasa dafa am benn waay boo xam ne ku bañoon sëñ Tuubaa la yàgg koo bañ. bi mu duggee ci gaal gi ndeysaan gis sëñ Tuubaa ci biir gaa yaa ngi ko dugal ci gi ngir bëgg koo Gabon mu ne kii kanaa du Ahmadou Bamba jaar ci turu sëñ Tuubaa yi ne kanaa du diw ñaw sa taalibe yi mel ni ku koy ndokk naan ko yow daal sa taalibe yi dañ lay jay naan yaay diw yaay nangam waaye tey de ñii jàpp la samay mbokk lañ na nga xam ne dañ lay sànk ji. Sëriñ Tuubaa nee na comme yàlla bëggut may dégg ci samay nopp lu loo xam ne daf may naqadi nee na yàlla ci boppam moo tàggat gaal gi muy riit di yuuxu ca kaw nga xam ne waa ji mi ngi may xas mais man riitu gaal gi moo tax man maa dégg xas wi lu ne moom mu koy wax ci xeetu lu ñaaw nee na nag ñu yeggee fa nga xam ne mooy karambasa foofu nag ci la waa ji dal di nag gaal gi dal di dem sëñ Tuubaa nee na lam wax ci biir gaal gi xaw ma ci dara te lépp ay xas la loo xam ne daf daf loo xam ne suma ko déggoon muy topp sama nopp muy topp sama nopp dana a naqari kon gis nga ko Sëriñ Tuubaa fépp fu fépp foo xam ne ni rek tabaarakalaa jëloon na fa décision pour fayantoo rek yàlla ci boppam moo koy yebalal lu koy fayul boo xoolee yoonu tukki bi yëpp boo ko jàngatee noonu rek la. moo tax nag mu ne àll ma ne xamal dama xablu ci li jiitu la daa karam basa fa karam basa mux si aji gàccalal ma ay si nguur sa nga xam ne baare si ni doon na liwatoog man waxal basa te daw na sax yàlla gàccalal na ma ka doon liwatoog man ci biir gaal ga bañ bee ko Konaakiri war a jëm karam basa mujj na sax wàcc na gaal gi ba daw la ma doon wax di ko xas yépp lolo tabaaraka la yàlla moo digal machine ba muy gaal ga muy rit yàlla nangul ma dégg sax wax ja yàlla moom nag xamal na ma ba ma nekkee ca la jiitu Karambasa xamal na ma ca la jiitu mooy ba may dem géej ga ba bala maa karam Karambasa ak ba ma fa yeggee yàlla xamal na ma. waa jaxantu jamale naa lil muñ tabaa ca kañu tànn ko xinda daaw fa daw me wa ma tànn lii jëmee ci man almuna sama bébét bi laa tasaawumi ci lu genn ak waxaale jëmale naa ca kañu tànn ko di yónente bi ba may ba ma nekkee fa daw me la ma jëmale ci yónente bi moom moo matal sama bébét te waxaale wu ma sax loolu ba tey beneen xis la moo di ne sëriñ bi bi nga xam ne mi ngi jëm daw dawme dafay amoon benn pot gëtug miska gum daan wis ci ay yéreem dégg nga maanaam ku fonkoon loolu dal xeeti xeet yu neex yi lu mel ni miska dégg nga yooyu da koo fonkoon lool léegi mu yoroon ci nag benn pot mu yor ko na di ci wis ay yéreem ak i téereem mu degg benn xitaab benn wax ju bàyyi ko ci kaw asamaan na ko sànni ko ci biir géej gi sëñ bi nee na awma may sikk awma lu ma ciy sikk sàkk ci laa ko sànni ca sansa ci géej ga ngir lam dégg ab xaaco la gu bàyyi ko ci kaw asamaan waaye gisul jëmmu mu ne ko sànni li nga yor ci biir ndox mi sëñ Tuubaa ne ne dénge dénge wu ma dal di koy sànni ci biir ndox mi bi ñu yeggee daw mi nag mbooloo mu bari ci taali bi ndeysaan di ma siyaare si ku ma si rek boo ñëwee danga ma jox potu gët potu gëtu miska te dafa bàyyoon xel moom benn la ci yoroon te loolu mënu koo ñàkk te dégg na ab xaatab ab wax ju bay ko ci kaw asamaan na ko sànni ko mu sànni ko te bàyyoon na xel xëy na bu demee daw mi jëndaat beneen waaye mu dem daw mi rek naka mu gaal gi teeree ku ñëw di ko siyaara rek jox ko patu miska sëñ Samba yi su ko daan nettali da nga dégg mu ne payorug yàlla moo gaaw moom benn lañ ko sànniloo bi mu demee ba yegg daw mi ndeysaan mbooloo mu bari di siyaare ku ko siyaare jox ko patu miska kon am na lu ko yàlla bëggaloon foofu bilaa tasaaw mooy dafa bëggoon a jënd bu demee daw mi mais bi mu yeggee daw mi mbooloo ma siyaare kenn ku ne boo ñëwee da nga ko jox di patu gëttu miska kon waxaaliwut moo almuna sama mbébét bilaa tasaawumi ci lu genn ak waxaale la ma jëmale ci yonent bi daal fa dawme moo ma indil sama mbébét te waxaale wu ma lam doon mbébét mooy gëttug miska biñ ko sànnale woon ci géej gi mu sànni ko soxlaatoon na ay ay ay gëttug wala benn gëttug bu ñuy wis ci ay yërëm bu ñuy wis ci ay téeram ba mu yeggee nag ndeysaan naroon naa jënd waaye mujj waxaale sax ndax ku ko rek da koy jox da koy jox patub gëttu miska wajantu jabale naa ila nabi ci yonent bi fii li mbarwali ci mbarwali hadiyatan hadiya joo xam ne wanaa lottu na xan xaa walis ko kul wali bépp wali nee na jox jox naa yonent bi sallallahu alayhi ci li mbar wali hadiyaay tagg aki julli yoo xam ne wali wu lot nga ci di ko jox yonent bi lama ma jox yonent bi sallallahu ci li mbar wali képp kuñ naan wali nga rek tabaarakallaahu eh, kooku lottu nga ci di ko jox yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu li mbar wali ndeysaan am na nii bu xam ne dañ ko ci dugaloon moog jigéen ñeeg góor ñeeg jànq jeeg ndaw ñeeg mag ñeeg màggat yeeg ñëpp ci biir néeg ak moom nga xam ne dañ koy sëm góor ak jigéen di sëy xoola yëf yu bon yooyu rek ci biiram wallaahi laasim ñii di tux ñii di naan sàngara sëñ Tuubaa nee na ma xam ne nag kenn ku ne ci ñun waxuma la man rek mi nga xam ne jullit laa waaye ñoom rek kenn ku nekk ànd nga ñaari malaaka muy raqib ak atib lépp loo def du leen rëcc ñoom ma xam ne ñoom comme mën nañ koo muñ mooy rëqi ba kantin ñi ngi ci biir néeg bi di mën nañ ko muñ man it mën naa muñ seen bont gi nekk ci biir néeg bi nee benn bis nag ndeysaan yàlla nattu leen bi leen yàlla nattoo ñi génn ci néeg bi bàyyi ko fi di dem seen barabu internet kaay yi ndeysaan bi ñu demee ba commencé maaj di internet ñi gis waa ba Badar ci seen kaw fas yi ñi ngi kaalewu ti seen ngàndaay yi ñoom ñëpp ñi tiit fekk ñi ngi àndatoonu seen njiit ñoom tubaab yi bañ gisee loolee nag nga xam ne ahlu badar dañuy gisanteeg ahlu badar bët ak bët ñoom ñëpp ñu tiit bëgg a daw seen jiit dal di leen tëkku xupp leen nee neen xabaar bii ngeen gis taykat buñ demee ci Ahmadou Bamba bu leen ko siwal bu leen ko ko gisoon nañ nangam fañ nekkoon ku ko wax rek danañ la rey seen jiit loolu nag ndeysaan bi mu ñëwaatee bi ñëwaatee bàyyi ko ci seen barab boobu ñu nekkoon di internet ndeysaan biñ dellu sawaatee muy mel ni koo xam ne daal dafay mbalak sëñ Tuubaa naan ko waaw ndax yow Ahmadou Bamba da ngaa am ay ndimbal yoo xam ne tey tey jii boo jëloon décision pour ñu dimbale la dañ lay dimbale pour bëgg rek sëriñ bi daal wax sëñ bi ne ko dafa am luñ gis waaye nangul ko koo wax waaye mi ngi koy mbarat daal sëñ Tuubaa na ko loolu moom nit lay war a nekk wala jinne wala nangam nangam <laughs> te fekk sëñ bi xam na ne ñoom gis nañ waa Ahmadou Badar ñi xupp leen de ñi tiit de moo tax seen jiit yi bi mu ñëwee mel ni koo xam ne dafay mbalak sëñ bi naan ko waaw yow ndax dangaa am ñoo xam ne dañ lay dimbale nga xam ne tey tey ji soo jëloon décision pour ñu dimbale la ñoom danañ la dimbale sëñ tubaa ne ko loolu moom lu muy war a nekk te fekk sëñ tubaa xam na lu mbir yi demee ndeysaan kon gis nga ko moo tax ma ne wa joxtu jëbale naa ilana bi ci kañu solo ko fii li mbar wali ci mbar wali hadiyatan hadiye joo xam ne waanaa lottu na ku lu wali bépp wali xan xaa ko hadiya jama jox yonent bi ba ma yeggee limbar wali wallahi wali wu ne lottu nga ci di ko jox yonent bi sallallahu alayhi wasallam hadiya ji nag maanaam du hadiya xaalis waaye hadiya la joo xam ne gindi gi muy gindi aw xeetam hadiya la joo xam ne tagg gi muy tagg yonent bi hadiya la goo xam ne julli gi muy julli ci yonent bi sallallahu alayhi rek la malaktu moom loo naa xayral xalqi ngeen gi mbindeef xenda baafale fa baafale siran mbóot moo xamee ne malaktu moomee naa bii ca mbóot moomee ku la maxfali bépp mu ne jëmale naa moom loo naa ngën gi mindeef ba ma nekkee fa baafali jox naa ko mbóot maanaam loo xam ne secret la ma jox ko ko moom yonent bi sallallahu ci mbóot moomee ci laa amee bépp ci laa moomee bépp maxfal maxfal su ko arab waxee mooy dingre mooy barab boo xam ne pénc la wala barab boo xam ne ëtt la dañ fay jaamoo yàlla dañ fay waxtaanee wax yu baax wax yu jub dañ fay waxtaanee mbiram ragal yàlla ku koy maxfal mooy barab boo xam ne dañ fay daje ngir ma ngir mawdoxa makaanul maka makaanu ijtimaahan li mawdoxin ma dégg nga bu ñu ne al mahfal rek mooy majlis fu ñuy jotaay rek ci gàttal fu ñuy jotaay mooy foo xam ne daal dañ fay jotaay bu doon ci jamono yi nga ne buñ ne al mahafilu asiyaasa mooy al mahafilu dawliya nguur gi ci boppam fi muy nekk di fa jotaay di fa liggéey foofu la ñuy wax mahfal bu dee ci nit yàlla yi nag mooy barab yi nga xam ne ci la ñuy jaamoo yàlla rek ci seeni dingare dégg nga moo tax nag mu ne jox naa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba ma nekkee fa baafale mbóot moo xam ne ci laa amee ca mbóot moom ma ko jox bépp bépp jotaay bépp manfal bépp manfal bu mu am rek ci gàttal mooy xam nga tey da nga dégg ñu ne pincam nangam pincam nangam pincam sëñ Tuubaa pincam sëñ Tuubaa loolu kenn xamul nu mu toll pincam sëñ Basiru pincam sëñ Mamadou Lamine Baara pincam nangam gis nga njabootam kenn ku ne ngay dégg nangam pincum sëñ Tuubaa pincum njaarim pincum nangam parce que yëpp ay pinc la yoo xam ne mi ngi ko ame bi mu nekkee baafali ngir lan lam jëmale ci kan ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo tax mu ne malaktu moom loo naa xeeral xalxi ngën gi bindéef xenda baafali fa baafali siran mboot moo xam ne bii ca mboot moomee malaktu ci laa amee ci laa moomee ku la maxfali bépp jotaay bépp maxfal mooy dingal rek mooy ëtt bépp jotaay bu ma am bépp ëtt bu ma am rek tabaarakallaahu maa ngi ko jëlee ci ba ma nekkee baafali mbóot ma nga xamee ne moom laa moom loo yonent bi ci laa amee bépp maxfal mooy bépp pinc moo dégg ñu ne am naa ko rek ba jumaa taxaw fa rek maa ngi ko jëlee ba ma nekkee baafali ngir mbuut mooma jox yonent bi sallallahu alayhi wasallam wajaxtu jabale naa ila nabi ci kañu solo kañu solo ka henda galwa fa galwa ma loo xam ne saa a màng na al balwa lépp luy balaa li siwaa naxwe mu jëm ci sama walla jox naa yonent ba ma yeggee galwa nag loo xam ne moom balaa yi moom ci laa ci noppi bi ma yeggee balwa ci laa noppi ci balaa yi balaa yi ngeen doon dégg yëpp yàlla teg ma ko muy 285 tolloog tabaarakallaahu aay yi nekk suratul baqara ci ay nattu te nattu bu ne wëlu yu àttanul ko nattu yonentu la mu ne nag nattu yooyu yëpp ñu ngi jeexee ndax maa ngi yeggee ca yàlla ca ca ca ca galwaa galwaa ay nit la xeeti nit ña ñoo tudd galwaa nit ci galwaa wax da nga dégg mu ne madaxtu inde una si galwaa yonent bi tagg naa ko fa ña nga xam ne nit ci galwaa la maanaam noonu lañ leen di wooyee moo tax nag jox naa fa yonent bi salaa salaam loo xam ne moo màng lépp luy balaa mu jëm ci fudul sama wàll moo tax ma ne wa jantu jëmale naa ila nabi jëkk ñu soloo ko xenda galwaa maa loo xamee ne saa xam màng na al balwa lépp luy balwa li si waa naxwiya jëm ci furu sama wàll nafaani jëriñ na ma anaafiyon aji jëriñi ji fii kab fii kabla bisaa ci biir kabla bisaa man faxatay ni ñaari njëriñ waxu bisaa te tëjees na balaa i samay balaa sama natt mu ne yàlla muy aji jëriñi ji tabaaraka laa jëriñ na ma ci kabla bisaa kabla bisaa barab bu xat la barab bu métti la barab bu bëri ay tolof tolof la barab boo xam ne bu métti métti la mu ne nag ba ma fa yeggee yàlla muy aji jëriñ ji jëriñ na ma fa ñaari njëriñ ba noppi nag tëj fa sama balaay foofu la yàlla tëjee sama balaay musal ma ca lépp luy bala waaye jëriñ na ma fa ñaari njëriñ moo tax ma ne nafaani jëriñ na ma anaafion aji jëriñe ji fii kabla bisaa ci biir kabla bisaa man faxa tey ni ñaari njëriñ la ma fa jëriñ waxu tëj na ba tey foofee ca kabla bisaa balaa yi samay balaa sama balaa yëpp foofu la ko yàlla tëjee ba mu jeex tàkk xuttu womat na lisil jalaali jëmee ci borom màgg wal ikraami ak terale maa loo xam ne sa yaram mu jël na alxanaa ak coono li sa san siraam muy borom dog womat naa jëmee ci yàlla muy borom màgg ki ak terele loo xam ne moo tax coono yi nekkoon ci man yëpp dog arrêté lépp lu doon coono ak mitit ma doon ko dund rek la ma womat jëmee ci yàlla loolu moo tax tabaarakallaahu coono yëpp dal di dog la ma womat jëmee ci yàlla mooy taw tawhid rek ak sant yi mu koy sant xeet yooyu la loolu foo ko dégg foo dégg mën a maa rek ko waxee ci yonente mooy lu mel ne tagg ak julli moo tamit na xutoo mat naa liisil jalaali jëmee ko ci borom màgg ki wala ikraami ak terale maa loo xam ne te mooy xëyti tawxiid yam koy jox rek sa yaram mu jël na alaxana ak coona yi nekkoon ci man san siraam di borom dog sama coon yi daal jeex na tàkk ngir la ma jëmale ci yàlla muy borom màgg ak terale wasaltu àggale naa lil moxtaari ca ka ñu tànn ka bisran bég moo xam ne mën na tere na min jihati sama wàll maasa ani lépp loo xam ne daf ma doon naqari fam tànn xaa ta mu mu ne jox naa yonent bi sallallahu alayhi wasallam mii di ka ñu tànn ka moo xam ne moo ma fegal lépp loo xam ne doon na ma métti di ma naqari sama wàll moo ko arrêté ba mu arrêté dégg nga ngir la ma jox ci yonent bi sallallahu alayhi moo tax mu ne jox naa yeggali naa ci yonent bi mbégte moo xam ne lépp lu ma doon naqari sama wàll rek loolee ma jox yonent bi sallallahu alayhi mbégte moo ko fànq ba dara naqatul ba dara dootul ma naqari ci sama wàll jeesa ba ñoddil na lii jox ma alxaadiru aji xam kàttan ji wal muqtadiru tey aji xàttan lépp womatal na jox ma maa loo xam ne dégg nga bu saaratan ci mbégte tabtadiru dana njëkkantoo lii ñeel ma bii moom loole yàlla muy qaadiru di muqtadiru ndeysaan ñoddina jëmee ci man loo xam ne lépp ay mbégte la yoo xam ne dafay njëkkantu di daw di ñëw ci man kon lépp luy mbégte rek yàlla mi tudd qaadiru ak muqtadiru ñoddina ko mu ñëw ci man maanaam ñoddil na ma loo xam ne loole yàlla jox ma moo may ñoddil lépp loo xam ne xeeti mbégte la muy njëkkantoo di ñëw ci man moo tax ne jasaba ñoddil na lii jëmee ci man alqaadiru yàlla muy aji xam kàttan ji wal muqtadiru tey aji xattan lépp ñoddil na ma maa loo xam ne tabtadiru dana njëkkantoo lii ñëw ci man bii ca loolee bu saaratan ay mbégte la ma yàlla ñoddil daal loolee ci boppam ci lay mbégte yëpp di ñoddee ko di fàqe ko fu ne di ñëw ci man wajjaha jëmale na lii ci man allati yàlla allahu yàlla allati moom mooy ki nga xam ne foofu moom ci dëgg-dëgg al ilaahu mooy yàlla de jëmale na ci man maa loo xam ne sarani daf may bégloo bilaa xuróorin ci lul benn ak waru aw bilaa wala benn ak caaxaan yàlla jëmale na ci man yàlla mi nga xam ne moom rek yàlla mooy ki yooyu jaamu mooy buur bi nga xam ne moom rek yooyu jaamu teg ko ci dëgg nee na jëmale na ci man loo xam ne daf may kontaan loo te du ma waru te benn caaxaan du ci topp wajjaha jëmale na lii ne foofu moom ci dëgg al ilaahu mooy yàlla mooy ki yoo jaamu jëbale na ci man maasara nii loo xam ne daf may bégloo bilaa xuróorin te du ànd ak waru mukk aw bilaa wala caaxaan kitaabati samay mbind mis la dafa mel ni kem jaasit yi warima ak xeej yi ridan ci ngërëm li man ñeel ka nga xamee ne xaada wamata na lii ñeel ma jóodan ak tab bi sama ci ak jàppandem ci ak tabeem mu ni sama mbind dafa mel ni jaasit yi ak xeej yi ci ngërëm maanaam jaasit yi waa ahlu badar nañu amee ngërëmal yàlla ak seen xëy ci nañ amee ngërëmal yàlla mu ne man sama xasida yi noonu la mel te lépp na ma jëmee ko ci ka nga xam ne tabaarakallahu woomatal na ma ak tabam ci ak jàppandem mooy sunu borom tabaaraka wa taala mbind mi lépp ci yàlla jëm ak yonent bi sallallahu alayhi moo tax mu ne kitaaba di sama mbind mislu suufin kem jaasiriya warima ak xeej ya ridan ci ngërëm na nga xamee ne jaasita waa ahlu badar ak seen xeej ya noonu lañ xeexee ci seen jaasire ba ngërëm taxaw mu ne man sama mbind noonu la mel ridan nekk ngërëm nag li man ñeel yonente bi sallallahu alayhi mi nga xam ne dégg nga xaadoo mata na li ñeel ma jóodoon ak tab bi sama ci ak jàppandeem ci ak tabam ci ak tabam li man boo la neex nga ne kitaabati sama mbind mis la suyoo fiin kem jaasit ya ma nekk di ngërëm li man ci yàlla ma nga xamee ne xaadoo mat na li ma jóodoon ak tabam bi sama ci ak tabem ci ak jàppandeem yàlla tabe gim tabe te jàppandi lool nga xam ne sama mbind bi kem jaasit ak xëy ji la nekke ngërëm ci yàlla mi nga xam ne womatal na ma tabem ci ak jàppandem maanaam yàlla ni mu tabee noonu la ma koo matalee maanaam daf may sotti rek ay mayam di ma ko jóor yoo sulu dana eggali xati sama mbind man yuridu koo xam ne dana namm tarbiya ak tarbiya wa man ak koo xam ne yuridu dana namu tarqiya ak tarqiya moo yéeg jëm ci boroomam yéeg li rabbi jëm ci boromam mu ne koo xam ne bëgg naa yaru mu ne sama mbind dana la yar ku bëgg yegg ci yàlla sama mbind mën na laa yeggale ci yàlla moo tax mu ne sama mbind dana yeggale koo xam ne bëgg na tarbiya lu waaye bëgg ci ak yaru ak defaru biir ak biti sama mbind ngi nii ku bëgg yegg ci yàlla nag ba tey sama mbind ngi nii moo tax mu ne xatti sama mbind yoosulu dana eggali man koo xam ne yurido dana bëgg dana bëgg tarbiya ak yaru ak defaru ak tarbiya wa man ak koo xam ne yurido dana namu a tarxiya ak yéeg li rab jëm ci borom ku bëgg a yéeg jëm ci yàlla mbaa nga bëgg defaru génn ci jukko yu ñaaw yépp sama bind gi nii ku bëgg a yegg ci yàlla sama bind gi nii kon bind bi lépp nga ci wasala eggali na lii ci man albaq yàlla muy aji des ji sawaaban yool wa jasaa ak pay wa xayra ajrin ak ngën gi yool xaada ko ko mat na mi nii mi nii jëlee ci man a rajasa rajas rajas ya mu ne ah sun borom yi aji des ji te du faatu eggali na ci man yool ak fay ak ngën gi payoor moom mi nga xam ne xasida yi ma def ci ban rajas yépp yàlla nangu na ko mooy xaada mi nii rajo sax mooy yàlla jëlee na ko ci moom sëriñ bi mooy nangu na ko moo tax mu ne wasala eggale na lii ci man albaq yàlla muy aji des ji sawaban yool wa jasa ak pay wa xayra ajrin ak ngën gi ab yool xaada kookoo mat na mi nii jëlee ci man rajo sax sama xasir yi ma def ci rajas muy baax rajas yàlla nangu na lépp ci saay rek baatin kon xasir googu di wala wala baan xool wakiilun foofu la yem mu dalaat geneen xasir goo xam ne ba tey noonu la ko tënkee mooy wala wala baan xool wakiilun mu ne bisimilah yi sos na ma sama wax ci tuddu turu buur bi arahmaani buur bay xewlaa kon ñëpp ci aduna arahimi buur bay koko yërëm ku ko soob ca alaxira wasala yàlla julli allahu yàlla ala sayidina ci kaw sunu sang bi muhammadin turam di muhammad wa ala ali ak ñu ñëw sama bi ak saabaam yëpp wasalama tumu dolli koolu tasliman dolli mu ne maa ngi tàmbali ci tur yàlla yàlla muy xewlaa kon ñëpp ci aduna te jiram yërëm ko soob ci alaxira yal na yàlla julli ci yonent bii di sunu sang bi turam di Muhammad yal na yàlla julli ci waa këram ak saabaam yépp te dolli ko musal wasalama tamu dolli góolu tasliman dolli góolu walaahu yàlla wakiilun aji seede la alamaa na xoolu ci lii ñu wax de lépp luy wax ñun suñ tubaa rek jàppal ne lool moom su ngeen ko seedewut itam yàlla moom seede na ko su ngeen ko gëmut yàlla seede na ko ci wax giñ ko wax kon li tax mu di ko tënki xasida mooy lépp rek la muy wax ci biir xasida ga mooy yàlla seede na ko te la doon loo xam ne ki am xel nii rek di xelaat te amul xam-xam bu xóot amul xel mu sell amut xol bu sell mën naa bañ a xam ni nu mu demee moo tax euh, su ko defee nag mën ngaa sukkandiku ci sa xel moo xam ne sellut rek wala sa xol bu laabut rek ba mën koo weddi dégg nga kon moo na nag mu ne yàlla seet na lii may wax ci xasida gi loo ci weddi lu ne rek yàlla moom seet na ko ba noppi kon soo ko weddee ko ko yow lay lor yow lay lor soo ko gëmee nag mu jëriñ la soo ko weddee mu lor la wax ko lii moom loolu rek la sant nga gëm ko mu jëriñ la nga weddi ko mu lor la ndax ñoom seen biir yëpp tooke la kon wala yàlla wakiilun aji seede la aji seede ci lii nga xam ne moom la wax walaaw yàlla wakiilun aji seede ci lii ñu wax wafaqani saahiru bil manquuli wa saanani l bil mahquuli ashara li sarixatal mutahara man qaada lil xaqiqatal munawara wafaqani dëppale na bil man xooli ca la nga xamee ne mooy la ñu toxal la kan moo la dëppaleek loolu mu ne asaahiru yàlla muy aji feeñ ji ba lu xool gis ko ci wasaani ni porotese na ma bil man xooli ca la nga xam ne mooy lañu xelu la albaatinu yàlla muy aji nëbb di walis bët di ko gis fii dafay wax ñaar mel ni rek sariya ak xaqiqa yàlla dëppale na koog sariya ci gàttal dëppale koog maanaam li ñuy tuddee baatin maanaam xaqiqa moo tax mu ne yàlla muy aji fiiñ ji ba xool gis ko ci ngir fiñ gópp dëppale ak li xam ne dañ koo toxal dañ koy toxal li ñuy toxal mooy li ñuy toxalee ci bindam gaa baax yi lu mel ni xeeti xam-xam yi fekkoon yépp ci wàllu tasuuf da dajale dégg nga lu mel ni fiq da koo dajale lu mel ni tawxiid da koo dajale xeeti xam-xam yooyu yëpp kooku man xool la nga xam ne yàlla miy aji fiñ ji daal lépp loo xam ne lu ñuy toxal la rek moom sëriñ bi yàlla dëppale na ko yooyu waaye yàlla muy aji nëbb ji lépp loo xam ne mbiram xaqiq la dégg nga mbiram xaqiq la mbiram baatin la dafa nëbbu yàlla ci boppam protégé na ko ci maanaam lépp loo xam ne mbiram baatin la yàlla aar na ko ca waaye lépp loo xam ne mbiram saaxir la mbiram sariya la yàlla dëppale na ko ko kon day mel ni rek moom sariya da ko boole yàlla xamal ko sariya yàlla xamal ko xaqiqa dégg nga nga xam ne baatinam du yàqu yàlla protégé na ko saaxiram itam yàlla defal na ko tawfiix ba lépp jag moo tax wafaxani tawfiqal na ma bil man xooli ca la ñuy toxal la asaahiru yàlla muy aji feeñ ji lépp lu ñuy toxal rek ci ci bind di ko bindaat wala di ko gën a yaatal di gën a yokk maxnaa bi wala di ko gën a yombal ngir nit ñi xam ko boo xool xasida bi yëpp xam-xam yi bu ko wëyee ay xam-xam yu bu fekkoon dafa ñëw rek wëy ko waaye ay wisar loon yoo xam ne gaa yu baax ñoo ko defoon kon moo tax nag bi mu ñëw yàlla defal ko tawfiq googu ba man lépp lu mu toxal rek man koo woy nga xam ne mu neex a mokkal nga moo tax mu ne wa faqani tawfiqal nu asaayiru yàlla miy aji fiñ ji bil manqoodi ci li nga xam mooy lu ñuy toxal te mooy xam-xamu fiq rek yàlla defal na ko ci tawfiq mu taalif ci loo xam ne néew na ñi gisaat koo xam ne dana taalif lu mel noonu taleeree noonu wasa wasaani nii ñoŋalal na ma bopp albaatinu yàlla muy aji nëbbu ji bil manqoodi ci la xam mooy la ñu xelu la naka noonu mbiram tasu ba tey loolu ko ci yàlla may nga lam ca taalif ba tey la ko ci yàlla may ba tey tabaarakallahu mayit ko kenn moo tax mu ne yàlla muy aji nëbbu ji ñoŋalal na ma boppam ca la nga xam lu ñu xelu la dégg nga la nga mooy lu ñu xel mooy mbiram baatin man xool nag lu ñuy toxal mooy mbiram saxir moo tax mi ne asaara feeñalal na lii ñal ma asariha ta sariha moom lay firi al mutahara gada guñu laabal man yàlla mi nga xam ne xaada womat na lii jox ma al xaqiqa xaqiqa al munawara gada guñu leeral lam waxoon ci bayit bi njëkk rek lay firiwaat nii nga xam ne lépp luy sariya suñu borom leeralal na ko feeñalal na ko ko sariya gi nga xam ne dañ koo laabal maanaam amul benn taq-taq dafa seet wicc yàlla mu ba tey womatal na ko xaqiqa mbiram baatin ba tey wasaane nil baatinu bil manqool yi loo xam ne mbiram baatin la lépp suñu borom wamatal na ko ko moo mi ne asaara leeralal na lii ñal ma moom yàlla asarihata sariha almu almutaara gada guñ laabal de man yàlla mi nga xam ne xaada wamatal na lii ñal ma alxaqiqata xaqiqa almunoora gada guñ leeral xaqiqa daal ak sariha ci gàttal yàlla ci boppam moo ma ko leeralal ku yàlla leeralal sariha ak xaqiqa nag du bokk koo xam ne yàlla leeralul la mbiram sariha ak mbiram xaqiqa kon gis nga ko moo tax nag bépp téere bu aju ci sariha mbaa xaqiqa mooy wafaqani sahir man manqool mooy bépp téere bu aju ci manqool nga xam ne sariha la ca lay wax kooku sunu borom moo ko defal tawfiq waaye bépp téere boo xam ne dafa aju ci xaqiqa wasaananil baatuna bil manqooli sunu borom moo ko ci defal tawfiq loolu xasida yi rek ci lañ bokk yi ñuy firi wasaananil baatuna bil manqooli dégg nga ba tey mu ne lam yan xuni duma jublu kadrun benn nax-nax aw xanaa un bi man hi man ci fegu ka nga xamee ne mi nii bàyyi ko ni ci man loxo jëm ca moom asanaawu taggu rafet lépp luy nax-nax mbaa coona sunu borom musal na ma ci du ma jublu mukk ci fegu sunu borom mi nga xam ne sama tagg yëpp ci moom laa ko jëmee tagg yi gën a rafet ci moom laa ko jëmee te moo yàlla nee na nag moo ma fegal lépp luy coona ak xiiti nax-nax ba duma jublu. lastu déet on si di peeg sanaa ahoo aw taggam dawaa man faw neex ma baax na al alim aji xam ji di yàlla wal xabiru tey aji dañ kumpa ji al tey aji peeg lépp yàlla de loo ko tagg-tagg mënoo peeg aw taggam faw kenn mëntu tagg ba pek taggu yàlla mukk tagg yàlla ba peeg ko kooku mu amut moo tam ne lastu sanaahu dawaaman unsi yow yàlla kat déet di mën a peeg faw saw tagg la kenn moom laa tagg ba peeg la lastu déet unsi di mën a takk di mën a peeg dawaaman faw sanaahu sanaahu sanaahu saw tagg la maanaam yàlla yow lu la waaye tagg-tagg du la mën a peeg day mujj rek sonn bàyyi fa mantu jeexal kon ñaax ma baax na alalima aji xam ji di yàlla wal xabiru tey aji dañ kumpa ji al muxsi tey aji peeg lépp inna kamaaluhoo naka dëgg-dëgg mat de hoo moom al kamaalu mooy matam de maanaam buñ naan mat dëgg-dëgg mooy matuk yàlla buñ naan mat dëgg-dëgg jubluñ ci nit buñ naan mat dëgg mooy matuk yàlla ku yàlla am na loo manqué ku dul yàlla nag mën ngaa nekk mat da nga dégg ñu ku mat la waaye buñ naan dëgg-dëgg ñi ñi bëgg koo tënk rek ci benn baat kooku yàlla rek ko def mooy li am dëgg-dëgg moo tax ma ne inna kamaaluhu naka ak matam moom yàlla ci dëgg-dëgg huwa moom ca dëgg-dëgg alkamaalu mooy mat jamaaluhu naka ab taaram ca dëgg-dëgg neex ma baax na huwa moom aljamaalu mooy taar gis nga buñ na mat ci dëgg-dëgg yàlla rek lañ ci namoo moom rek mooy ki mat buñ na rafet dëgg taar dëgg-dëgg wala yàlla rek mooy borom taar moo tax ne jamaaluhu taaram ca dëgg-dëgg neex ma baax na huwa moom huwa moom aljamaalu mooy taar huwa moom yàlla al ilahu mooy yàlla de wa huwa te moom allahu moom kott mooy allahu asamat mooy kilifa gu ñëpp jëmale ay xaajata moom jublu aji jëm ci kenn arafixu mooy aji yëkkati dégg nga dégg nga almuisu mooy aji teddal min xëy xamat ci lu benn keno mu ne a ah, yàlla moom rek mooy yàlla de te moom kott mooy allahu ismu saat moom rek moo ko tudd mooy samat mooy kilifa gu ñëpp jëmal ay aajo te moom jublu aju jëm ci kenn de mooy ki nga xam ne mooy yëkkati ku ko neex teral ku ko neex te te te kenn du gis kenn ko téye xam nga loolu suñ tubaab mi kenn la ci ñi nga gisee suñu borom na ma bind asamaan te amul keno noonu laa ci nit ñi ba tey de am na nit ñoo xam ne kenn mënu leen di daane ni asamaan mel lañ mel kenn mënu leen di daane yaay wax ba daanu rek waaye ñoom duñ daanu moo tax mu ne huwa moom yàlla ci dëgg-dëgg al ilahu mooy yàlla wa huwa te moom allahu moom rek mooy mooy ki tudd allahu asama te mooy kilifa gu ñëpp jëmale ay xaajo te moom jublu aji jëm ci kenn arafixu mooy aji yëkkati ji almuisu tey aji teral ji almuisu tey aji teddal ji maanaam arafixu mooy aji yëkkati ku ko neex almuisu tey aji teddal ku ko neex min xayri xamat ci lur benn keno léeg-léeg gis ku yàlla teddal gis ku yàlla yëkkati te doo gis benn keno bu ko téye waaw da nga daal kii yàlla te dal na ko kii yàlla yëkkati na ko waaye nag keno bu ko téyee moom nga dut xam ndax soo xamoon keno ba fa mu nekk fa ko yàlla samp konoon mën nga ko daani waaye da nga ko dut xam sax